الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعزيمنا محمد رسول الله xam دوني يجلي توتي رك نخ ndax li ñu teggin yi bariwut ñu ñëw si léegi nag li yàq jàpp teggin yooyu wax nañ leen si bu mu jublu penku te it bu mu ko won ginnaaw wax nañ ne nag bu fekkee ni nag su fekkente ni fa mu nekk saatir nekku fa maanaam lu koy defal suturaal foofu ñaari wax a ngi si si tere gi almuxtaaru minhuma bu ñu tànn alman ak bu ñu tere mu ne wa amma fi'luhu fil manzil def ko nag si kër fa yajuuzu mutlaqan moom dagan na ani sawaun kaana hunaaka saatir moo xam saatira nga fa am laa wala déet kaana hunaaka machaqa wala sax machaqa nga fa bën bën wala déet léegi nag ñu ñëw si nawaqidul wudu i liy yàq njàpp léegi wax nañ leen teggin yi kon teggin yooyu nañ ci bàyyi xel léegi nag lan mooy yàq njàpp na nawaqidul wudu'i arbaatun ñeent rekk la ñeent yooyu jamono boo ko defee sa njàpp yàqu na al awwalu bu njëkk bi mooy arriddatu mooy murtat lan mooy murtat wa hiya kufrul muslim mooy jullit boo xam ne nii dafa wax waxi kéefir wala mu jëf ko loolu mooy murtad loolu ku ko def rek murtad na léegi nag murtad yi bari na de ku murtad rekk fu fekkoon nga jàpp njàpp la yàqu na mën naa laa jox misaal bu jege si jamono yi coow li fi am mooy ki fi waxoon ne alquran am na lu si nekk yàlla daf koy wax waaye du dëgg ay théâtre la kooku daa murtat ndax waxi murtat la wax waxi kiifir la wax kooku génn na si diine bu fekkoon mu jàpp njàppam toj na maanaam misaal laa lay jox rek si murtat nit ki mën na koo def si jëf mën na koo def si wax léeg-léeg nga wax maanaam jamono am na ku ma déglu mu ne julleek woor ak dem màkkaak yii yëpp ay caaxaan la dara amu si kooku daa murtat te maa ko dégg mu koy wax te bam ko waxe ay ngi di contente la mu wax ne julli wor dem makka mu ne yi yep ay tiaxan la dara amusi si la ko waxe kok dafa murtat ko genn si diine bu fekkonté ni japp na japp la kok sax mom du julli ndax du japp ndax ko nan julle ko wor ay tiaxan la dara amusi kok mom du julli waye bu doon l'islam nak kaddu gogu bu ko waxe ñu ñew woo ko mu ni moo wax l'islam da koy ray parce que da murtad bari na ñu fi wax waxi murtad tay ji bu lislaam taxawoon ko waxati kon murtad day yak ñap ñaarel ba moy ashakku fi wujuri tahara ku am sikki sàkk ndax man la am ñap wala awma ñap leg leg muy dal nit nit dem ba si yag muy sikki sàkk wa nax ndax man sama ñap li toj na tojul jamono boo amee sikki sàkk rek ni sama njàpp li ndax toj na walla tojul rek léegi njàpp la toj na demal nga jàpp waat wala mooy ashakku fi wujuri taxaara si amug laap awil aw fil xadasi wala si toj ndax moom fi mu ne nii mi ngi si làpp walla njàppam toj na mu nekk si diggante boobu loolu day yàq njàpp. aw fi saabiq wala sax la ko jiitu min huma si ñoom ñaar wala sax li jiitu si sikki sàkk boobu. maanaam avant ngay sikki sàkka yow kat la ko jiitu yaa ngi doon am sikki sàkka mu ne kon njàpp la toj na maalam yastankixuhu shakku fekk nag moom sikki sàkkaam boobu amu si lu wóor maanaam bu demee ba ni ba ba am lu wóor nag ni moom daal njàppam li tojul bu boobaa na dem léeg-léeg nag seytaane day def loolu doomu aadama day seytaane day fay doomu aadama léeg-léeg da lay def yow saa yoo jàppee ba pare rek bay bëgg a julli rek mu mu def si sa si sa xel yow sa njàppali toj na koy dëkkee di mu ne ñetteel ba alxadasu mooy toj lan mooy toj nag wa huwa maa xaraja min ahadi sa sabilayni mooy li génn si ñaari benn si ñaari bën-bën yi bu dee si kanam gi la génn bu dee lool mooy singuwaay jàpp la toj na bu dee si ginnaaw gi la génn loolu mooy dem duus njàpp la toj na ala wajhi sihati si nag lu wér wal itiyaadi ak loo xam ne nii baaxoo nañ koo def araabiu ñeenteel ba mooy al asbaabu sabab yi nga xam ne day waral njàpp toj sabab yi maanaam waxuñu loo xam ne direct la xam nga ki dem wan ak njàppam toj na kooku direct la ki dem duus njàppam toj na kooku direct la waaye nag am na sabab yoo xam ne nii su ko nit ki defee même bu demul duus sawul njàppam toj na سبب yooyu ñetti lañu mu ne al awalu bu njëkk bi lamsu man tuujadu lazatu nga lal ko xamni ni soko lalé am ci banex manam ku gor ki lal jigen yo xamni ni jamono bu koy lalé rek da ci am banex day yek banex ci bopam fi la aada si aada ka zawja lu melni sa soxna nga xam ne soo ko soo ko soo ko laalee rek xëcc ko si sa kanam rek da nga da si yëg bànneex mu ne loolu soo ko defee rek sa njàpp toj na demal nga jàpp yu waat da jàpp julli ba pare diggante bi laal nga fi sa soxna si xëcc ko am si bànneex ah njàpp loolu toj na moom boo bëggee jàpp boo bëggee julli da ngay jàpp waat wala am mati wala jéebéer mooy ba jéebéer di am mooy jaam. in xasada lazata su fekkente ni laal gam koy laal def see jublu bànneex ba pare wa waja daxaa mu am ko sa maanaam laal gi ngay laal sa soxna wala ku jigéen ki da nga see jubloo am bànneex njàpp la toj na aw waja daxaa wala sax bi mu ko laalee jubluwu ko si woon mais bànneex fekk na ko sa nag njàpp la na moo tax mu ne aw laa wala déet aw laa aw waja daxaa wala sax fekk amu si bànneex mais moom la si jublu woon njàpp la toj na min xayri qasdin si loo xam ne nii jubluwu ko si illal xublata lu dul foon fil fammi si gémmiñ maanaam nit ki su foonee jabaram si gémmiñam gémmiñ ak gémmiñ mu ne fa innaha tanqudu mutlaqan kooku moom njàpp la yàqu na moom completement fala turaa fiha lazatu foofu moom kenn du si seet ndax am na si bànneex wala amu si bànneex waaye comme que moom mook soxnaam fóonante nañu gémmañ a gémmañ rek njàpp la toj na moom su paree moom day jàppiwaat bu ko sa bànneex fekkee dana jàppi bu sa amul bànneex day jàppi moo tax mu ne falaatu raa foofu kenn du fa càmmonte nag fii sa moom allah sa bànneex wa qawlu naa lamsu man tuujadu lazzata bi lamsihi aadatan ihtirazan mimman laa tuujat al lazzatu bi lamsihi aadatan fa innaha laa tanqudu salaat laa tanqudu mu ne nag laal ko xam ne ni yow boo koy laal man koo xam tuujadu des na sa am al lazzatu bànneex bi lamsihi sa laal ga nga koy laal aadatan si lu ñu baaxoo kooku moom day yàq njàpp ixtiraasan di moytandiku nag mim man laa tuujatu si koo xam ne nii moom doo ci am bànneex boo ko doon laal tey mu ne loolu fa innaha laa tanqudu du firi njàpp masalan tey ka saxirati xale bu ndaw munoo see am bànneex kon xale bu ndaw bu jigéen nga daal di koy jël teg ko sa kaw di ko nax kooku moom yàqul njàpp ndax loolu wutoo ci bànneex moo tax mu ne la kas saxirati comme xale bu ndaw allati laa taxa nga xam ne laa tushtaha munoo see am sax yëg-yëg kooku du yàq njàpp mu ne wal maxaram ak koo xam ne nii maxaram la ci yow maxaram nag mooy ku la araam kooku maanaam tey sa rakk bu jigéen ngeen gëj a gisante ngeen gisante nga daal di koy lëng kooku du yàq sa njàpp ndax kooku maxaram la ko araam na si yow nga daal di gëj a gisanteeg sa yaay nga gis ko rek daw daal di koy lëng kooku du yàq sa njàpp ndax maxaram la kooku araam na la maanaam képp ku la araam rek moom lëng gaak laal gaak yépp yàqul sa njàpp ndax kooku dala laa araam moo tax mu ne laa tanqudu wal maxaram ak maxaram kal umm comme lu mel ni yaay wal bint wala doom bu jigéen wal uxtu wala sœur mu ne ba tey ñoo ngi si liy yàq njàpp mu ne asaani massu zakari nafsihi al muttasil bi baatini kafihi mooy nit ki laal sàkkaraam si biir ténqam maanaam nit ki dafa laal sàkkaraam maanaam koo xam dafa jikki-jikki woon rek doon wokkatu bi muy wokkatu ténqam laal sàkkaraam njàpp la toj na moo tax mu ne bi baatini kafihi si biir ténqam aw jan bi wala sax si wet yi maanaam tënk li wet yii laal sàkkara bi njàpp la toj na aw bi baatinil asaabi wala si biir baaraam yi biir baaraam yi baaraam yi moo laal sàkkara si njàpp la toj na aw bi jan bay ha wala sax weti baaraam yi wet yi nii mu jëkki-jëkki rek lii daal di koy laalaale mu ne eh sama wet yi laal na ko njàpp la toj na kon daal li la bëgg a wax mooy sa loxo bii biir tënk bi su laalee sàkkare si njàpp li toj na baaraam yi su ko laalee njàpp li toj na weti baaraam yi su ko laalee njàpp li na. moo tax mu ne aw bi jan bi min xayri xaailin si loo xam ne nii nag amul loo xam ni dafa nekk xaail seen diggante am dan si lu mu tey aw saxan wala lu mu juum xaail mooy la mooy lu dox diggante bi su fekkente ni nag yow. nit ki bi muy laal sàkkaram am na lu dox si diggante bi maanaam maanaam loxoom laalul sàkkara si direct mais am na lu nekk si diggante bi loolu moom du yàq sax njàpp ndax am na loo xam ne nii nekk na si diggante bi maanaam mi ngi mel ni nit ki sol jiitalam daal di laal jiitalam waaye ngëbaale na sàkkaraam mais jiital bi moo dox diggante bi ah, ah boobaa loolu njàppam yàqul ndax laalu ko direct moo tax mu ne min xay saxwan iltaza aw laa masahu mooy laal na ko wala moom بسنكو من الكاميرا او غيرها مو خامني ني كاميرا لا ولا لو لودول موم موي لو خامني ريك دوخنا ديغنتي بي من ولا ينتقد بمسه من فوق حائل من نك لال سكره سوكا لالي سي كاو لو خامني ني حائل لا موي لو خامني ني دوخنا ديغنتي اك موم من لولو سا نياب دو ياكو ولو كان خفيف دونتي لول دا فا اويوف واي دال ديغنتي بي موم dox na sa diggante loxo ak sa sàkkara donte dafa oyof mu ne loolu du yàq sa njàpp mu ne wala bi qaxqaxatin fi salaati mu ne reeba kekku si julli du yàq njàpp <laughs> waaye nag julli ga moom yàqu na moom maanaam nit ki bu doon julli ba si yàgg rek mu daal di xaqataay julli ga yàqu na waaye nag ndax day jàppiwaat déedéet julli ga moo yàqu rek day tàmbaliwaat julli ga mone wala bi masi imraatin farjaha ala al mazhabi wa qila yanqudu mutlaqan mone du tiaganteni lal laal nak payam nit ki bu lalé payu 'ala Al mazhabi si ngir yëpp wa qila nee nañ yanqudu mutlaqan njàppam yakuna mom complètement lolu mom kuko def rek njapam yakuna na moo tax ne wa qila nenañu da fay fireku njàppam loolu day yàq mutlaqan si lu ñu joyal kooku moom amul sikki sàkka wa qiila nee nañ sax yanqudu in qabada alayhi su ko ngëbee njàpp lay yàqu na aw altafat wala sax jël na baaraamam dugal ko sa lonk-lonkal ko ñu ne njàpp la yàqu na loolu sax moom xanaa ku koy def da koy def si ku la dagan waaye ku la daganul moom daa aram moom wala sax mu dugal loxoom si diggante ñaari tuñi pay yi mu ne boobaa li yàqu na wala yantaqidu in massat zahirahu wala bi massi duburi mu ne sa njàpp du yàqu su fekkente ni ku jigéen la loxoom moom moo nekk ci kaw payam walla sax loxoom bi mu laal ko ci ginnaawam nii donte solul tubéy waaye ci ginnaaw gi rekk la ko laal mu ne loolu moom yàqul njàpp mu ne walal unsa yayn du càggeen ñaari waaya mu ne laal ñaari waay yit mooy ay xuur maanaam ba ñuy wax mooy loxo bu laal sàkkara mais bu fekkente ni si xuur yi rek la yem te laalul sàkkara bi njàpp li du yàqu. moo tax mu ne wala bi un sa yey du càggante ni ñaari waaya ba ñu ko suñu sëriñ di jàngal moom noonu lañ ko ndax moom da ko doon suturaal moom maanaam moom ñaari waaya la doon wax ñaari gaa yi waaye ñaari gaa yi moom buñ ko waxee rek mooy xel yi xam nañu li ñu bëgg a wax. mu ne wala bi lazati bi nazari min xayri masin wala du càggante ni nag xool goo xam ne nii mas yu génnul maanaam dangaa xool pay mi te mas yu génnul du yàq sa njàpp waaye jamono bu mas yu génnee nag njàpp la yàqu na loolu nag bariwul maanaam nit ku xool payu jàmbur te dara génnul si moom bariwut waaye nag bu dara génnul si moom njàppam yàquwut waaye bu dara génnee nag min xayri mas yin si lu àndul ak mas yu bu dara génnee si moom rek njàppam toj na mu ne wala bu tafakkurin du càggati xalaat ma allazati bu ànd ak bànneex fii qalbihi min xayri inaazin faraani moo ne du càggeen ku toog di xalaat xalaat bu ànd ak bànneex nit ki léeg-léeg dafay toog di xalaat ba mu ànd ak bu dara génnul ci moom njàppam yàquwut waaye bu dara génnee rek njàppam yàqu na maanaam nit ki di xalaat bànneexu sëy bu dara génnee ci moom njàpp la yàqu na waaye bu dara génnul ci moom nag njàpp la yàquwut mu ne bu jëkk bi mooy al farqaratu shadidatu mu ne nag xalaat bu xuut bu tar si wàllu sëy bu ko nit ki defee rek bu demee ba xóot nag dëgg dëgg nag bu boobaa nag njàppam da yàqu léeg-léeg nit ki toog di xalaat ci wàllu sëy ba mu xóot lool ba mu sax moom muy xalaat na nanuy sëyee loolu bu ko nit ki defee rek njàppam yàqu na kon asaani قال في الكتاب إن صلى وهو يدافع الحدث أعاد أبدا من سنت كي جولي تفك موم وقت وي موي جولي ميغي قتيون تيك حدث توك توك بي ген سي موم خمغا ليك ليك نيت دوغ سي بير جولي دي قتيون تيك توك توك مانام موي قتيون تيك ليك ليك نغيلو بغا ген سي موم موكا ييك loolu bu demee ba koy xëccanteeg moom rek julleem yàqu na na dem toj toj boobu mu génn mu daal di jàpp daal di dem julli ji sopp sax si nit ki mu yëg ne moom war naa dem duus dem di profité di julli wala mu yëg ne war naa sawus mu dem di profité di julli loolu soppuñu ko demal loolu nga génne ko ba pare nga soog a ñëw julli ndax loolu dañ koy tere si koo xam ne dafay julli xam naa incha allah dar eh, dars bu gudd la te bu am solo la ndax ay sew-sew yu bari lay génne ba tax duñ ko mën a wax yëpp dañuy taxaw buñ bu ñu dellu siwaate nag incha allah ñu mën a continuer ak yéen di ñaan lépp luñ fi wax mu jub ñu koy sante yàlla bu amee njuumte yu si nekk ñoo ngi koy jéggalu di leen jéggalu yéen ndax ngeen xam rek lañu bëgg buñ ci waxee it loo xam ni it xaw naa doy waar ah ñoo ngi leen koy jéggalu ndax lépp it dañoo bëgg rek mu leer si seen dégg ngeen xam ko ba bu ëllëgee. ku mu gaar nga xam naka nga koy defare wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala asaabi sallama tasliman wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بيت الولايات فيه الظلام ومفتاح الخلود وختم الكل